mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm si cak-cak xibaar xibaaru bés bi ñu ngi koy tàmbali ak situation wu Ousmane te baa bi waa Pastef sulli woon ngir exiger ñu yóbbu kii di njiitu Pastef bitim réew mu faju ji mu ngi daal di continuer ndax kii di Alioune nekk président Afrikajom Center mu ngi wax autorité yi ñu bàyyi ko mu dem arrestation manifestant activistes ak opposants yu nemmeeku mu ngi continuer ci Sénégal Cheikh Omar Diagne ak Abdoul Karim Gueye lañ ci mujjee teg loxo journal bi li observateur mu ngi xamale ni ñu ngi toll ci lu ëpp 400 arrestations ci réew mi. ñu des ci problème boobu ba léegi kii di Yaya yi ñu jiiñoon ko ni moo sotti si Ousmane Sonko benn substance jàkkaarloo na ak police libération ba ngi xamale ni moom nee na deful li ni mel ndax keroog ba mu gisee lacrymogène yi di jolli ci la jël écharpe bi mu yoroon def si vinaigre ngir jàppale kii di Sonko. ci samedi bi weesu douane teg na loxo ci lu tolloog 2 milliards faux billets foofu ca Thiès jàppagum na ñetti nit yu ci impliqué wu douane mu ngi xamale ni ay billets yu cent cent ak cinquante euros lañ nëbboon ci benn colis teg ci ruban adhésif xibaaru bés bi ñu ngi koy jeexale ak Cheikh Tidiane Koulibaly nekkoon ancien président wu Cour suprême Macky Sall daal dina ko fal président commission électorale nationale autonome du Sénat observateur xamale na ni moom moo remplacé kii di Doudou Ndir wax leen ñu seen xalaat ngeen yaakaar ni arestation yu bëri yi du suuxal suñu démocratie mbokk yi lii la leen tele bu baax bi indiloon tey ci càq-càq xibaar di leen jox dig daje suba ci yeneen xibaar jaa ngeen jëf.